Juan Branco di avocat Ousmane Sonko plainte na Macky Sall di njiiti réewu Sénégal ba woon ca kanamu justice française ubbil journal bii di réew mi quotidien waaye nag ñoom nee nañ plainte boobu mënuñ cee àddu li ko waral moo di seen compétence mayu leen ñu daal di atte mbir moomu le ca jamono jooj nag journal bii di la le quotidien yéenekaay dina wax ci wàccaay tabaski bi nee na nag fépp ay yëngu xara ngi ni xuus ci dëkk bi waaye nag njëg li daa seer lool ba kenn mënu koo laal njëgu paas tamit ba jéggi dayoo ginnaaw ba nga xamante nag El Ndiaye di jëwriñ bi ñu dénk wàllu dem bi ak dikk bi moom demoon na ca garage boo maraîcher daal di artu ñi nga xamante ne nag ñoo di chauffeur si waxtaan ak ñoom ngir ñu wàññi njëgu paas yi waaye ba léegi furaas loolu taxul benn yoon chauffeur si deltu ginnaaw benn yoon si yokkuteeg paas gi bés bi la jour dell si waat ak ñun ci dossier yi nga xamante ne nag moo ñeel sécurité armement renseignement ak ci wàllu mbay mi wax na tamit ci mbir Israël ubbil journal bi kuréel yu bëri yu nekk ci Sénégal li ñu bëgg moo di relation diplomatique yi nga xamante ni séq nañ ko ak Israël ñu daal ñu dagg lépp wax na tamit ci mbir ñeent fukki milliards ak juróom yi nga xamante ni ñeel na wàllu armement ci dëkk boobu nga xamante ne nag moo di Israël Omar ñaan xam-xam màcc ci réew moomu di Israël nee na nag bu ñu dakkalee bépp relation bi nga xamante ni moo dox suñu diggante ak Israël mën nañoo indil ay gàllankoor wax na tamit ci wàllu mbay mi ak mbiru Prodac laas yenekaay ñëwaat ak ñun ci bëgg-bëgg bi nga xamante ni waa forum civil ñoom lañ bëgg mi doxe ko wax nañ tamit ci reddition mi nga daal di koy yàbbi wax na ci wàllu sécurité alimentaire ak wàññi teg njëgu dund gi lépp nag Birahim Seck di njiitu forum civil dëxëñ na ci biir journal bi di las yéene kaay 24 heures yéene kaay di ko fell ci geneen wàll ga ne waa forum civil ñoom li nu bëgg lépp lu nga xamante nag ñi ngi koy dundee ci réew mi ñu daal di ko fay bayee nee na loolu nag mën naa tax réew mi génn ci guddi gi nga xamante ni moom lañ nekk mi ngi wax yi tamit nguur gi ni bépp liggéey bu nga xamante ni defoon nañ ko ñu daal di koy jëmmal wax nañ tamit ci wàllu gaz rapport bi kalawaas tàggat yaram lépp nag Birahim Seck ak ay ñoñom wax nañ ko ci biir 24 heures yéene kaay yi ñoom it am na ay digle yu nga xamante ni digal nañ ko Ousmane Sonko di elimaani jëwriñ yi ne bu ko defee rek réew mi mën naa soqaliku te askan wi tamit mën nañ cee gis seen bopp lee fa yéene kaay ne forum civil ñoom nag dellusiwaat nañu ci wàññi teg njëgu dund gi ginnaaw bi ñu ko rafetloo ba noppi Birahim sekk di njiit la nee na gouvernement bi njëg yi nga xamante ni wàññi nañ ko néew na loolu nee na nag Sénégal boobu ba léegi lépp lu nga xamante ni da koy dundee rek dañ jéggaani te loolu nag jëmalewul réew kanam foog ñuy bàyyi li nga xamante ni moom la noo dundee nee na loolee rek buñ ko defee mën nañ yëg bu baax yokkute koomu réew mi ba noppi askan wi gis ci seen bopp njëg li tamit na mën a wàññeeku bu baax loolee lépp nag njiitu forum civil di Birahim sekk dëxëñ na ko ci biir l'info yéenekaay ñoom nag nee kilifa yi dañu war a def seen kéem kàttan ba promouvoir production locale bi nee li ñuy bàyyi ci réew mi nag ci lañ war a dugal koppar yi ngir askan wi mën cee gis seen bopp bu baax a am ci biir croix rouge benn responsable camaraderie bu nekk ca jëppal nekk tamit secrétaire général bu comité local moo sàkk benn gone gu am fukki at ak juróom-ñaar muy wuyoo ci akan moom nag ki mu tuumaal a la nee na nag ay yoon yoon la ko daal di sàkku moo tax nag jamono jii a camara moom mi ngi ci loxoy yoon benn ancien collègue moo ko gën a dugal te moom it nag mosoon nañ ko tëj ñaari atu kaso euh, ci wàllu viol tàggat yaram ak Rewmi Sport verdict bi dox si diggante Stade Mbour ak Jaraaf moo sowe Casa